mu amoon ci kanamu Teungueth FC stade de Mbour bëgg nag daal di defaraat bu baax a baax ngir mën a gagné finaal coupe du Sénégal buy am dimanche ci digganteem ak Jaraaf club mbuur bi nag bëgg dajale ay supporters yu bëree bari que le dimanche 27 war a dem stade Abdoulaye Wade mu ëpp fuuf stade Lat Dior ñu war a mobiliser peut-être dix mille personnes. foog ñu jël les mesures idoines parce que match bi mooy gën a teel a am 17 heures la donc il faut aller plus tôt ensuite nombre de nit à déplacer bi moo gën a bëri. bu ko bi Sénégal bi moom mooy gën a metti euh, préparation bi ñu def euh, ci coupe de la ligue bi lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu defoon ci final bi final coupe de la ligue bi passé en terme de mobilisation et d' dañ ko war a tripler voire ñu voire ko. ñi yor club bi nag ñoo ngi invité supporters yi ñaari équipe yëpp ngir ñu def fair play bëgguñu ci benn violence. de de discipline et de fair play parce que defe naa ne wane nañ ko fu mooy ab lancé waat un appel. foog ñu jël les mesures idoines. yëpp dem fii dinañ continuer sensibilisation bi nu mu mën a deme final bi bu jeexee. stade de Mbour war a dajeek Jaraaf ci stade Abdoulaye Wade bu jam ñaajo ñu war a def nag final coupe du Sénégal ñaari équipe yi daje woon nañu ci championnat yi ñaari yoon benn yoon leen match nul loon 1-1 beneen bi Stade Mbour moo ko gañe woon benn bal ci dara waaye dimanche bii nag li nga xam ne mooy championnat du Sénégal moom la ñuy wax.